eh kii ah, iya. ah, ya, hmm, kan la sama waa ji. maa xamul gars yi. ñaa la gis. waaw maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla. maa ngi la gis yaa ngi yeesal de. waaw bien xam nga rek. waaw mais foo jógee nii ak sa saak. xam non. yaa ngi yeesal scooter bi de foo jëm nii. sonn mer. looy mer gars yi. non foog mer. pas kita mau gisi emang man nit si télé. di wak yenn ya, wax yi ya, daf may métti quoi. kuy wax loolu par rapport ak Ito lu mu

Eto'o du ma ñaaxanteeg moom parce que du ma kalaasam maa ko ëpp xaalis. moom football la def ba am xaalis man damaa dawal Pétain Pétain am naa ci lu ne ku dem Pétain représenté ji Sénégal trente neuf fois champion du monde kooku ak Pétain benn la. non mën na leen bokk. dañoo mën a bokk dem joxe ji prix un milliard laay jox équipe nationale. Ah, yaa ngi bëgg a guddee de sama waa ji. ah avion ban ab vol ngay jël. Ah, non ban vol nag yoo tamit saa vol bi damay bañ mu tardel ma da fanaan moo tax ma doon yeesal sama damay jaar nii si pot sama mécanicien bi hmm. xam nga damay jaar ci moom pour mu lan pour scooter bi si ginnaaw roue bi mu yokkal ma yow scooter nga ñaar a fii ba Gabon eh man naa yóbbu naa fi scooter ah, sama waa bala ngaa dem bala ngaa yegg baa coupe d' bi du jeex man coupe d' mooy jeex saa waay yaa bi nii booy Gabon saa man lii jël man jël naa fi scooter yóbbu ko ba bos wala moo gën a sore Gabon

gisaguñ la quoi man xooloo maa ngi ñëw dafa am lu may lijjanti parce que dama demoon xam nga damay waaj a takk nii quatrième femme. yow waaw damay waaj takk quatrième do président Gabon bi doomam bi laay waaj a takk mais dama koy def surprise quoi laa gisanteeg xale bi quoi xam nga xuj a bongo fa laa moom. tey sama waay yow saa boo ñëwee daal indi information bu bees. waaw léegi sama kii man daal de toute façon mooy. maa ngi a dem daal. Gabon laay dem. dem si fo gañe waa ji 2-0 ñibbi si xam match bi 2-0 la. waaw mais yow dafa mel ne xaalis bi war nga ma see mën a compal sax ma am si prime bi. bokk non non dama ko ba ma koy génnee sama banque dama ko génnee tak un milliard la un milliard kese laa génnee xam nga comme xas naa ba ne jour yi laa koy jox. su ma si jëlee dix mille francs sax mun naa tax seen yaakaar fii un milliard moo fi ne damay dem maam bi dem dugal ñaari bii yi ma ñibbisi. yow maam biram mooy dugal nga ni. su maam biram mooy dugal ñaari bii suba. maam biram da gaañ bàyyiwuñu fenn. maam biram deux match ngi nii gaañ dafa mel ni moom kuy jàpp joru nawetaan. non xam nga lu waral loolu maa ngi moom waxtaan nañ waa stock latéral bi ñu koy loo moo tax mu commencé raté mais maam biram daawul raté yooyu. suba match bi daal saa soo ma gëmee baax na dëgg la nag dégg mel na ni gis naa ko si télé bi muy xatraay yooyu di wax ni Sénégal yi gars yi dañ koo fàtte ko parce que match yi éliminatoire yëpp muy dugal ñaari match yi dugalul gars yi di ko ŋàññi waaw mais non loolu ñun Sénégalais ñoo mel ñun dugal la ñu xam waaw mais dëgg compétition la oo oh, xam nga lan la hmm. man maa ngi dem léegi nag sam benn copain am na kenn ku ma woowoon batale woon naa leen quoi dafa bëggoon appartement batale woon naa ko yow pour bu ñëwee quoi xam nga jox naa ko sa numéro. jërë nga la woowaguma woowagu la non xam naa dina la woo. xam nga man su ma nekkee Gabon il faut may am ay crédit damay bëgg recharger waale crédit trois cent cinquante mille pour yow boo may woo nga may mën a jot quoi. Mm. da nga xam nga. cey sama waay. maa ngi yaa ngi ay bagage de. waay xam nga rek. xaalis bu bëri bii nii nga nar ko yóbbu Gabon ak sa scooter nga ni moom ngay demee Gabon. xam nga ñaata moo nekk sama compte. Hmm. vingt neuf milliards. moo nekk sama compte lool man rek maa ko am. Ah, ah, loolu de li ngay jox joueur yi wàññiwul sa compte. garaawul man état Sénégal man état Sénégal lebal naa leen xaalis ba tey fay ñu ma. kooku lebal Macky Sall. moo xam naa waat laa ko lebaloon mais ah, garaawul. kon de ñàkk nga kooku dem na dem na dem dem na Macky mu ngi ma doon woo téléphone sax naan ma pour Sénégal booy demoon jouer ji bi sa kër xam nga seen prime xam nga jotaguñ ko. ñu ngi ñaaxtu di kaas tey wax dëgg yàlla comme danoo dem gañaloon ñu gars yi waroon nañ leen jox seen prime. yow yaa leen war a jox ndàmpaay daal. non état moo leen waroon jox mais xaalis bi nekku fi. nga leen quoi ma lebal leen. te nag booy li ñuy kaas dëgg la bu ñu demee bay jëndal saa Bissau signal pour ñu mën a seetaan coupe d' seen dëgg ay millions. Mm. war nañ jël millions yooyu ñu jox ko booy demoon gagné ñu coupe d' afrique du mooy yoon. léegi man woo naa seen capitaine woo naa seen capitaine bi Sadio Cissokho mooy capitaine bi xam nga xam nga moom championnat Canada la nekk championnat Canada Kora foofu la nekk. xam nga maa moom déggante nañ téléphone nee naa ko léegi amul problème dagaleel ma booy yi su ma ñëwee man dinaa leen jox ku nekk treize millions c'est bon. treize millions. ah c'est bon yow moom sa yéene ngay demee ku ñuy may moom doo taamu quoi waaw ku nekk treize. waaw treize baax ah. mais yow man loo may compal. yow ah yow. léegi yow amul problème léegi lebal cinq cent mille. da ah, nga yor poche saagu xaalis nii wala dem ba Gabon saag bi dama ko prévoir yow lebal cinq cent mille walla ma yebal la nga dem fenn seetaanee fa match sama benn kër copain ki ne moom a jàmmee ah mooy waajooju nekk sa koñ sama koñ léegi da ngay seetaan loolu ak papaam ak booy booy seetaan ak papaam match <laughs> paa bi ku tëll mu ne jumaane mu mooma lemu ah dundi xanaa ay soose lañ waaw ay soose lañ moom mooma jàmmee faal Sambou Fall Fatou Kiné magam yëpp ubbil na leen ay ay fast ay fast food la leen ubbil. ay ay fataayu compéré la ñuy jaay. te beneen magu téyeram bi. ah fa ngay reere moo tax temps yii da nga am lex sax beneen beneen magu bi. ay machine douze quatre-vingt la ko jëndee man papa jee mooy daaneel boo fay see daaneel dafa moom mag. Hmm. pour moom ku fël pour moom moment gën a aaye Messi. jumaa lemu moomoo lemu waaw. ayaa dundi. <laughs> ma ne ko ah père. ah moom day lu yàlla xam doy na. woo na woo naa ko. ah mais moom doomam lay gis si match bi ah. doomam lay gis yoon la. ah mais benn match. mais moom mu ngi football non mais football. moom waaw keroog ba ah, équipe ah moom dafa yaakaar ne joueur yëpp moom la. non ba bi di joué joué hmm. ah, bi contour Algérie hmm. ah, mu jeex quoi. xam nga moom comme les gars yi ci boobu lañ ko la bokk moom joué na nag ci match boobu ba mu jeex. mais yow Gabon nga bëgg a dem nii. waaw maa maa ngi dem nii gars yi xam nga léegi yow score bi ma la wax côté soo ko côté baax na. soo ko kosewul bu baax na. ñaata la bee paase loo waxoon. bee paase li ma la wax moo am. non yaa si yokk benn. kan. da nga yokk benn da ngaa xëroon nag sëñ bi da wax deux nga wax trois. waaw mais xam nga sëñ bi moo wane daal match bi. est-ce que wala bi. moom après dama dama dem ba stade ma mujjee ko wàññi quoi. Hmm. parce que waa Zimbabwe yi. seen da nga leen a yërëm quoi dama leen a yërëm. Hmm. ba pare seen wa bii bii di ñëw ñaata la. seen waa jooju nga xam ne tur bi dañuy bañ ku ko wax si dëkk bi. gaañ na suñu jour yëpp. bii ñu ñëw ñaata la.

du Gabon ah maa ngi maa ngi téye sa tama téléphone di la déglu man kay bu ma lay déglu kay xanaa si jàmm laa lay déglu waaye fii ba Gabon yow mii nii ba Gabon. saa maa ngi soo ma gëmee baax la soo ma gëmul baax la est-ce que maa noonu ah. yow nag mënoon nga see jënd billet moo gënoon yomb. non garaaw. waaw nuyul ma waa Gabon Pape. ndeysaan yow moom da ngaa jërë yërëm quoi. yow moom da ngaa jërë yërëm quoi. salaamaaleykum mbokk yi Sénégal salaamaaleykum mbokk yi jullit yi ñu ngi fii ci seen télévision Marodi TV télé bu xew ci jamono télé bu àdduna bi di seetaan di dee di xakkataay waa lii nag li may maye li ma fekkee la kii benn bambara la mu jógee Mali. ñëw Sénégal dégg loo yenn rek loolu lañ lay fay mu ñëw gaar ba gis ñu wàccee benn conteneur mu ne salaamaaleykum dafa bëgg ngeen yónni ma conteneur yi bi ñu ne ko sëñ bi lii àttanoo ko bambara bi mu ne dee nañ ko yónni conteneur bi moom li muy wax xam na ko moom yàgg naa yenn conteneur conteneur gars yi na ko amul benn problème gars yi jël conteneur bi jën ko bambara bi bambara bi téye conteneur bi naan nii yëriñ kefu ñu naan mais kii lu muy wax ni bambara bi naan ñu naan kii nii bambara bi naan yi nii këful ndekete boobu bambara bi daanañ ñu yenni ko mu xef loolu laa doon wax asalaamaaleykum wa salaam